maa zaman itu, di prepare. nag di prepare, prepare leen le 24 Februari 2019 24 Februari 2019 lan ngeen koy préparé mooy ngeen commencé léegi. képp koo xamante ne njaboot inscrireul ngeen demande leen ñu dem à la préfecture parce que les inscriptions ont commencé bu ngeen deful loolu lan moo nar a dal réew mi mooy benn waay koo xamante ne xamul woon réew mi ba nekk fi premier ministre ba jéem fi nekk leneen ak leneen

et qui est composé effectivement de plusieurs sujets avec des femmes d'une valeur inestimable. Votre mère vous soutient et sera toujours à vos côtés. Je vous remercie.